tegal ma tegal dama nekkoon fenn te da nga war a accompagner dama ñëw indil la non xaaral population Guédiawaye yi kontaanul waaw lan nga leen di wax non mais non mais xam nga xam nga xam yow mii ñëpp kontaanuñ sa émission bi c'est pas mon problème ah non non non non may nag may may nag may nag ce n'est pas mon problème déedéet may nag c'est le cadet de mes soucis comment yaruma yaruma yaruma yaruma un biir. non non non non non non may nag kaay ma léegi de loolu du tontu de. mairie yaruma mairie dama ne waa mairie waa Guédiawaye yi kontaan na loolu la ñu tontu non mais dafa ndànk. yàlla yàlla mais yow yàlla mi nga xamante ne ñun moo ñu sàkk. ñëpp a kontaan. ñëpp a kontaan. yow da nga yor da da nga yor un mandat local. waaw mais dama ne. ñi nga administré ñi nga xam ne kontaanuñu. lan nga leen wax mais est-ce que man est-ce que man Guédiawaay yëpp yëpp 500000 personnes ñoom ñoo. mais je lan nga leen ban message. ban message nga leen di wax non message yi ma fi expliqué nii. Ah. leer na boobu non xam nga xam nga nit bu kontaanul. non dama ne parfois nga ne ko ah may leen ma tuuti non non non non non maa ngi ci liggéey bi may déglu nga expliqué la may lan nga leen di wax yow jikko politicien nga yor. ah ah xam nga jikko politicien mooy lan. Hmm. dëkk di nax nit ñi rek. <laughs> Ah, non c'est que c'est-à-dire man. moi je leur dis lii ak lii ak lii ak lii fii laa toll te bi may ñëw dama def samay vidéo ñëw indaale la ñu am ay objectif ñu nekk ci ay chance di waaj itam signé ay ay ay partenariat ak ay ak ay ñeneen pour des hôpitaux et cetera et lépp ma indil la ko nii nga gis nii loo xam ne dañ ciy teg baaraam du noonu mais kantaan à nag toog fi ne non cest à mu muñ leen non doon wax ñu muñ. déedéet ñu xaar. non no non ban xaar dañ ma ni ma leen di xaarloo non. lan nga leen di wax non ñoom ñooy jugé 2027 bu jotee man daal lépp loo xam ne man mën naa ko ak lu ma mënul yépp dinaa ci rey sama bopp ñëpp nag mënoo leen satisfaire am na ñoo xam ne tey boo defoon kilo ceeb dërëm dërëm mais ñooñu ànd ñu ak yow du ñu bëgg makeeg waa këram lu ñu fi mënti def man sama zaar gi man gisuma ko man daal li ma gis mooy 2024 moom ala kulli aalin ñoom waruñu fay toogaat man lii laa gis mais am na ñu gis leneen ñooñu mënuñu def lu ma saf mënuñu def tamit loo xam ne nii daal man laajuma leen xaar man naa leen doon laa leen xaar la laa leen laaj man ñoom Macky Sall na def passation de service de pouvoir ak suma candidat di président El Hadj Malick Gakou Macky ñaanuma ko dara lu dul mu organiser ay élections yu leer. non waxuma ma dëgg ko moi je parle aux populations de Guédiawaye waaw la. Ah. dama la wax ne yàlla mi nga xam ne moom moo yor wërsëg yor teraanga ñu am ci moom yaakaar ba tax ñuy dund di woor da doon julit wala nga doon chrétien wala nga doon diine bu la neex chaque jour nga dëkkee nattu ak loo xam ne neexu la ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp à l'unanimité mënuñoo kontaanandoo ci 500000 personnes. loolu laa expliqué moo tax ma ne la man li may wax waa Guédiawaye nekkul dara dañ ma yónni man maa ngi ci point amul leneen éducation bi ñoo ngi ci nous sommes actuellement à plus de presque deux cent sept bourses début d'année lañ ne trois cent et quelques bourses moom la ñuy moom lañuy moom la ñuy moom la ñuy maye euh, euh, par an santé ñu ngi ci environnement ñu ngi ci dégg nga loolu sport ñu ngi ci compétence transférée yi état centrale bi jox collectivité territoriale yépp ñun ñu ngi ci